asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey nag ku ne xam na ne ñu ngi àllarba maanaam mercredi mu tombe ak le 4 août 2021 li ñuy def mooy bàyyi leen ngeen dem seetaan li nga xam ne moom la kaay yi indi ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 4 août 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglikaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi tey xëtamu njëkk lam ca xëy fesal wa ca xëy gën caa fes moo di ki nga xam ne nii moom lañ wooye la donkin da l'arène muy Gaston Mbengue yëglikaay bi nag moom moo xëy dalal ko Gaston nag mu nga xëy daal di teg ay condition condition ya mu teg nag moom lenn la Gaston wax wala moom lay ñaan ne na état bi dong daal lay ñaan bu buñ koy jox ndigal moom mooy organiser Balla gay numéro 2 ak Bombardier Gaston daal dana fi nekk nii dama taxaw temm di leen déglu loolu daal mooy ay waxam ka mu bëgg a organiser rek muy bombardier yëglikaay bi ñëw na ci moom ak la nga xam ne nii fi mu nekk nii mu ngay dugg si ci moom muy 45 ans yoo xam ne mu ngi ko am ci làmb ji yëglikaay bi ne na le premier octobre bii ñu jëm daal ci lay am 45 moo tax yëglikaay bi sampab laaj ne ce que bombardier dina mën a tenir la nga xam ne moo di bàll ëmma seen ak la des Bécaye Mbaye nee na lu ko koy tere bu fekkente ne am na hygiène de vie boo xam ne bu baax la maanaam daal teg ay mbiram ci yoon nee na keroogee tamit gisu ca loo xam ne ay jafe-jafe lay doon loolu Bécaye Mbaye moom moo gise noonu keneen koo xam ne ni moom juróom-ñaari at yoo xam ne toog na ko bëréwul muy Moussa Jumbu Parcelles Mbooloo Moussa nag tey ka mu xëy di dëkk du kenn ku dul ka nga xam ne moo di caat bu booy bay bu booy bambara caat mi fi daan mut jëbër ki dem daal la Moussa Jum xëy tey sampal ko ndën ne ko kaay ñu bëre keneen koo xam ne ni moom joxoon nañ ko combat ba mu war a bëre muy Serigne Ndiaye numéro 2 bërki démb mu toog fii nga xam moo di ba ñuy wax Arena Hebdo ci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 yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu làmb Aline John di ancien coach national de lutte olympique daal xëy na tey seq waxtaan wu yaatu ak ña nga xam ne nii ñoom ñoo di ñoom ñoo di waa sunu làmb yëglikaay ba mu xëy tey dalal ko moom Aline John ñëw na ci lu yaatoo yaatoo yaatu ñëw na ci tamit ci combat ba nga xam ne moo war a dox ci diggante Ama de ak Modou Lo dana boobu combat day mu ngay nekk na combat boo xam ne fii daal fi la boobu fii nu toll nii maanaam ay risque mën naa taxaw ngir nag reporter man caa am am ca moom Alioune Dione daal moo xëy tey waxtaan waxtaan wu yaatu ak yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu lamba keneen koo xam ne ni moom ci làmbi simple ji ak làmbi dóor ji la boole nekk ci muy Ibou Ndiaye Obali Obali nag yëglikaay bi ñëw na ci moom ak la nga xam ne gañe na ko ren mu toll ci juróom-ñaari gala maanaam set gala yoo xam ne gañe na ko am ci xaalis lu toll ci 4 millions yëglikaay bi xëy na tey toppal ñu lu mel ni ki noonu beneen xale boo xam ne yëglikaay bi xëy na tey dalal ko ñu naan ko gànja faama moom nag moom mooy ka nga xam ne ni doomi bitanti la di ab xale boo xam ne mu ngi ci lambi simple ji gànja nag moom la nekk ca xel ma ak bëgg-bëgg ba lenn la ne na Balla Gaye numéro 2 daal laa bëgg dem ba doubler ko ci lamb maanaam romb ko di dema dema dem ñëw na tamit ca la waral turu gànja faama jàpp na ne woowu tur moom magam benn garam daal moo ko ko tuddee biir a biir a biir maanaam daal ci pël ya lay dellu moom gànja fa moomu bitanti daal moom moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu mel ni ki nag lambi simple ja xam ne ca la ne nee na gàñe na ci ay nag yu baree bare ak xaalis boo xam ne bari na bu yàggul tamit drapeau chef de ba nga xam ne moo amoon ca Kaolack moom tamit maanaam daal nekk na fa champion jël ko ak ba nga xam ne nii moom moo di région de Diourbel moom gànja faama yëglikaay bi moo xëy tey ñëw ci moom ak waxtaan wu yaatu les arènes tamit yëglikaay ba xëy na tey ñëwal ñu ca xëtam écrit boo xam ne ñu nga ànd di entraîner muy waa jàmbaar wrestling academy yëglikaay bi nag xëy na tey sampab laaj moom les arènes nee na maanaam entraînement yoo xam ne fi mu nekk nii dafa séparé ak ñàkk ànd ga ak yoo xam ne ni daal problème leader la ay leader la ak yu mel ni ki noonu yëglikaay ba loolu la xëy tey toppal ñu ko mel ni kenn daal soo bëggee dégg-dëgg yëglikaay ba la mu jàngat mooy écrit yi daa mel ni fi mu nekk nii daal mbër yi joxatuñ leen gëdd leen leen waroon a jox maanaam mbër mu ci neex mbër mu mu ci neex kala neex ngay àndal di entraîner yëglikaay bi jàpp ne ndax lii bu yàggee est-ce que écrit yi moom doote ko jar wala boog sampub écrit dina ko jarati yëglikaay bi nga xam ne moo di les arènes moo xëy tey toppal ñu lool ci xalima ka nga xam ne moo di Abu Nduur Seexu Jaxate nag moom di président écrit Dudu Baka Sarr moom nee na boo bëggee dégg dëgg loolu lépp li ko indi nee na lenn dong la mbër yi dong la du keneen parce que ñoom ñoom ñooy ñoo xam ne daal seen intérêt yi bopp kese moo leen intéressé waaye écrit wala leneen intéressé wu leen loolu mooy waxi ka nga xam ne moo di Seexu caravane mbooloo tamit ñëw daal xam ne ñoom ñooy responsable du kenn ku seen engagement moom moo des Mbaye Diallo tamit ma nga xam ne président la jiite la nga xam ne nii tamit moom moo di école de yaag écrier tamit xëy na di ca wax Mbaye daal la mu xëy xamle lenn la Mbaye nee na ña nga xam ne ñoo di président yi daal seen ab liggéey la ñu defatul nee moo tax lu neex waaye def fi mu nekk ni ci écrits yi ku mu neex ànd ak kala neex yëglikaay bi dikkal ñu ci ay ànd yoo xam ne ñëw na wax nu ko moom les arènes Modou Lo ak ka nga xam ne moo de Papa Sow ba ci Franc Balla gay numéro 2 ak Baboy ak Sa ak yeneen ànd yoo xam ne daal boo xoolee ña koy def maanaam benn écrit bu ñu entraîné bokkuñu ko wala boo boo xam ne moom la ñuy représenté keneen koo xam ne yëglikaay bi les arènes ñëw na ci moom muy caaka fay ma nga xam ne wàllu lambi dóor ja daal fi mu nekk nii daa am ay jafe-jafe ngir jéem caa jàll yegg ca fa nga xam ne nii maanaam daal fa la war a yegg wala boog wane ca boppam tey ñëw dina ko wax beneen écrit boo xam ne yëglikaay bi di les arènes ñëw na ci ñoom muy écrit fas ak ndakaaru yëglikaay bi ne na daal boo xoolee forsa bëréwul Gris Bordeaux bëréwul lam ndam la nga xam ne amoon na ko dañ koo nangu moo ka nga xam ne nii moom moo di parisien moo tax yëglikaay bi jàpp ne daal bu doonu kon ka nga xam ne moo di gridé moom kon écrit boobu ren lambaay dana fa ñaaw lool lool lool les arènes moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu yëglikaay bi tamit ñëw na ci caat ak ndam lu rëy la nga xam ne am na ko bu yàggul ci diggante mag ja yëglikaay ba nag mu nga xëy tey daal toppal ñu caat ak na nga xam ne jàpp na ne kon noonu la war a màgge wala boog mu nekk ca yoon wa moom caat ma nga xam ne moo nekk école de booy bambara jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay yi muy sunu làmb les arènes tey la nga xam ne moom la ñu koy indil ci ay xibaaru làmb waaye nag balaa ñuy sori rek dañuy nuyu ñëpp ñaanalaat ñëpp jàmm ñaan yàlla feebar bi nga xam ne moo fi wàcc di coronavirus yàlla na ko fi yàlla jële barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xam ne maanaam dootee su ko gis Sénégal waaye tamit àddina bi yëpp dootee su ko fi gis yëglikaay yi tey nag bu ñu ñëwee si ñoom bu dee sunu làmb la ñëw na Gaston Mbengue ma nga xam ne daal moom lañ ñu fa won ca xëtam mu njëkk moom yëglikaay bi di sunu làmb Gaston nag la mu xëy xam le daal nee na bu fekkente ne état bi daal nangul nañ ko lii muy def moom maanaam kon moom dina organiser la nga xam ne moo di Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier bu fekkente ne daal fi mu nekk nii moom ah jox nañ ko ndigal Gaston loolu la wax waaw parce que tamit maanaam boo déggee wax ji mën nañ ci jàngate kan rek promoteur la boo xam ne wala promoteur yi dañu jël seen ay millions dugal ko ci ay combat tey ñu xëy ay làmb ji ngir coronavirus kon moom defe naa ne bu gisee ne tamit bu ñu ko joxee ndigal mu dëgg komba bi waaye dama naan loolu moom bu joxe tey ndigal ñu baree baree bare nañ dem seen se wutiwaat ay dat pour jéem a tëgg seen ay combat waaye itam boo xoolee ah olof nee na dafa am loo xam ne daal Euh, dafay jafe maanaam liñ naan wokkutu ak tëgg tama mënta ànda yaa ngi dégg loolu day xaw jafe parce que jamono biñ ne ak ni ñuy waxee ci ay xibaar yi ñuy am ci corona bi fi mu yegg ak dee yi ni mu mel defe naa ne fi mu nekk nii daal ah mooy loo xam ne doy na waar waaye du tere tamit ay condition war na mën ko war nañ ko mën a teg lu toll ne état ba nga xam ne ku ci ne la nga war a def di ko mën a def te mbir yi du romb fa mu war a romb wala ak yàqu-yàqu bu bari du ci am keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom muy bombardier ak 45 ans yi nga xam ne le premier octobre bii nu jëm la koy am yëglikaay bi ne nag ah est-ce que bombardier boo 45 ans yi bu xasee dugg ndax la mu war a mën a ye lenu dina ndax li mu yenu dina ko attan wala déet moo xam diggante mag Balla la Eumeu seen ak yeneen combat yëglikaay bi moom moo xëy ba samp boobu laaj père Bekaay Mbaye nag ñu koy nuyu si di ko ziar suñu papa tontu na ci nee na lu tax nee na bu fekkente ne am na hygiène de vie maanaam hygiène de vie mooy sportif boo xam ne daal a ah, yow sa hygiène de vie leer na maanaam say mbir yaa ngi koy teg ci aw yoon Bombardier nag ba fii mu toll nii tey defe naa du dem ba war a am 45 ans nekk di compétir ñuy laaji sax ndax am na hygiène de vie wala amu ko defe naa bu ko amuloon ba tey waxatee su ko kon ba tey toogee ndax am na ñoo xam ne moo ñoom ñoo maasa woon carrière wala sax mu mag leen carrière ñooña tey mën nañ ne bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax la bàyyi loo sport wala lamb en général bokk na ci ñàkk hygiène de vie te loolu sportif bu ko ñàkk booyee boo moom nga seet foo jëm te xam ne ak loo am am talent sa carrière du sori moom hygiène de vie moom waxuma sax sportif waaye dafa baax si doomu aadama nit da nga am hygiène de vie ci sa dund loolu moom yàlla sax moo ko njëkk gërëm yaakaar naa maanaam selal sa dund selal la ngay def ak lépp looy def la ngay lekk ak fa ngay lu mu manti doon loolu defe naa ne am na solo bu nu continuer ba tey keneen koo xam ne moom absenté na ay juróom-ñaari yoo xam ne gisee su ko ci lam ñu Moussa bu passé mbooloo moom nag ka mu xëy sampal ndan mooy caat bu booy daal la teg ay bëtam ah parce que tamit bon Moussa Dioum ku ne xam na ne mbër mu mag la du mbër mu ndaw waaye nag dafa fekk ne làmb ji boo toogee lu mat juróom-ñaari at xale yi dañuy liggéey ci diggante bi yeneen xale day feeñ beneen beneen yeneen données yi day changé ba façon changement boo xam ne ah, lu baree baree bari bu ñu waxantee dëgg dina la raw loolu xam naa ne nag ah fi mu nekk nii moom am na ndax yaakaar naa ne Moussa Dioum ba ñu koy coow dëgg-dëgg mu nekk ci làmb booba caat xamaguñ ko ci làmb waaye nag ci diggante bi sept ans yi mu toog bëriwu ko caat wane na fi boppam ba yaakaar naa bërki dem ku ne gis na fu mu mujjee ak mujj Serigne Ndiaye démb fii la toogoon ci plateau arena abdo wax ne diggante mag abi farhat jeex na yëglikaay bi di sunu làmb xëy na dikkaat ca loolu gën ko leeral ne na Serigne Ndiaye daal xotti na la nga xam ne moom moo di contrat bi waaye ñun liñ ciy wax mooy moom Serigne Ndiaye numéro 2 ci écrit na am ay kilifa te defe naa écrit yu toll ne Fass ak Ndakaaru ña ko jiite muy ñu mel ni ki noonu defe naa ñooñ duñu ay personnes yoo xam ne nii ah dañuy dugg ci lu leerul wala ñuy def loo xam ne nii lu leerul la kon yaakaar naa daal bu fekkente ne xotteeg ñàkk xotti lu mu ci mën a doon rek bu ci kanam dinañ ci am lu gën a leer lu gën a leer nañ ndax contrat bi day continuer wala du continuer waaye rek ñun dañ ciy wax ka ni waxtaan na am parce que tamit rafetal gi yaaxul dara parce que ñoo bokk làmb ji te promoteur bi la jox ay millions yaakaar naa ne bañu nga bëri day fekk ne nag des fois gàllankoor mën na ñëw te gàllankoor jàmm dab si àddina amul day neex tey naqari suba mu mm, na naqari tey suba mu neex àddina noonu la vie bi di doxee Ibou Ndiaye Obali set galaa yoo xam ne jël na ko yoo xam ne remporté na ko ren Ibou Ndiaye Obali bërki dem moom tamit dalaloon nañ ko fii am na ci lu toll ci 4 millions yëglikaay bi di sunu làmb moo xëy tey toppal ñu lu mel nekki noonu muy xale boo xam ne ku jara bàyyi xel la ci làmb làmbi simple ak làmbi door keneen koo xam ne ci làmbi simple ji tamit mu ngi cay yëngutu muy gànja faama di doomi bitanti Hmm, ma ci profité di nuyu instance yi di nuyu waa Bitenti yëpp moom tamit tey yëglikaay bi dalal na ko moom la ne la muy génte ko reefe daal mooy dem ba doublé Balla Gaye 2 man na ko wax nga dëgg ndax itam Balla Gaye moom defe naa tey xale bu jug ci làmb boo ko doublé ci làmb defe naa ne ah da nga yegg fa nga xam ne ni mooy au sommet ndax Balla Gaye 2 mu nga au sommet de la lutte sénégalaise loolu la yàlla dogal loolu defe naa ne mooy waxi gànja loolu nag la koy may xale nga macha allah saf nga xorom dëkk nga ci penc moo xam ne ni dëkk bu mag la muy Bitenti ñu ngi sa ginnaaw liggéey rek amul secret boo liggéey rek résultat yi ñëw les arènes ñëw na tey ci la nga xam ne ni moom mooy entraînement séparé yi irrégularité yi défection des leaders yooyu yëpp boo ko xoolee nga dajale ko mooy maanaam lu xam ne ni daal écrit yi léegi daa mel ni la nga xam ne moom la waroon a am wala gëdd ya moo waroon a am amatu ko parce que li ko waral mooy ña nga xam ne nii ñoo fa doon nekk di leader yi pour ñu entraîner ak waaye écrit ba entraîner normal yombatul ndax ku ne da ngay ber wala nga la ànd ak kala neex même bu ngeen bokkul écrit ngeen di entraîner loolu nag léegi léegi loolu la yëglikaay bi tey def a taxaw seetlu mu jàpp ne kon est ce que écrit yi sax léegi est ce que jarati na ko mel ni ki am na ñoo xam ne tontu nañ ci Cheikhou Diakhaté président école Doudou Baka Sarr moom daa jàpp ne ne moom mu gis ne na mbëri seen intérêt kese waaw waaw nee na daal moom loolu la yaakaar ne loolu rek leen tax ñuy def yu mel ne ki noonu ah addina nag sa intérêt baax na waaye tamit intérêt intérêt général tamit am na solo te def naa écrit tamit bañ koy sanc fa lañ la formé defe la la fa lépp defe naa ne lu mënti xew rek mu nit ki nag di nga dem ba benn niveau boo nga xam ne sa carrière dina gën a kawe nga gën a nekk professionnel parce que lay waral tey Bombardier génn dem à l'étranger entraîné Balla gay 2 dem INSEPS Modou loo dem Barcelone Gris Bordeaux dem feneen ah guy gi dem États-Unis Reug Reug dem feneen loolu li koy waral mooy sportif bi day màgg ci niveau bu màggee ci niveau nag mën na di def yooyu waaye du tere bu delsee nag ci réewam ànd ak écrit am entraîné defe naa loolu day dundal écrit bi parce que fa lañ la formé ba dara nekkagul dara loolu jar na xel ñoom ñëpp wax nañ ci Sawru Fall Mbay Jàllo ku ci ne wax nañ ci waaye li am solo daal mooy nañ ci bàyyi xel terewul nag Modou Lo ak ka nga xam ne moo di Papa Sow Franc ba ci ñoom it dañ leen gis ñu ànd entraîné Balla Gaye dañ ko gis mook loolu tamit pour man nekkul loo xam ne pour man gravité bu a garaaw pour man déedéet mais du tere écrit bi bu ñu joxantee la nga xam ne nii bu ñu ubbee waram am fu ñu entraîné war a entraîné defe naa ne ñoom ñëpp war nañ mën di daje mbër yu mag yaak yu ndaw ya di bokk di entraîner do pour équipe bi mën a sàmm ne ci yoon naa daal loolu mooy la nga xam ne ni moom moo si dikkoon la nga xam ne ni tamit moo jëm ci wàllum ñàkk yi tamit ñëw na ci moom les arènes ah, la yi daal ñëw nañ ci tey ah, na ku ci nag la mu jàpp mooy na fi mu ni daal ah, dafa maanaam la nga xam ne nii moo di ndigal yi ñu li nga xam ne ni moom moo war a am maam les Niass tamit di coach su Parcelles Mbooloo tamit nee na mbir mi ñëpp la concerné wul kenn kon ku ne da war a ñàkku Joséphine Joséphine Mbassa Sow moom promotrice bu jigéen la nekk ci làmb moom nag la mu gis daal nee na waruñoo obligé kenn ne ko war a vacciné wu pour xool pour seetaan combat moom gis-gis boobu la am àddina nag loolu mooy àddina ku nekk ak sa gis-gis di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm gi wax ka ni tamit ñu ngi remercier képp ko nga xam ne da ñuy seetaan moo xam yaa ngi zeme wala ngay commenter ak loo mën a bind rek ñu ngi lay bàyyi xel da jàpp ne la ngay bind amal nañu intérêt moo xam critique la moo xam da nga ñu encouragé parce que loolu mooy àddina dara parfaitul di remercier koo xam ne tamit kenn la ci man parce que su ma mbokk la muy jëy seen borom bu borom jëy production jëy seen di promoteur u làmb nekk nga xam ne nii jeune la bu nga xam ne bawal bawal la waaye tamit ku ne xam ne ne tey implanté na ay société ci Sénégal ah, di fay ay nit ay salaire ñuy liggéey ndax li tax ma koy remercier mooy nit la koo xam ne ci man dañoo bokkee ca bawal ñëw ndakaaru yaa ngi dégg tey sama mag Pape Niane fa mu war a taxaw fa la mu di taxawu ci su gisee ma def lu nga xam ne lu anormal la ci micro wala ma wax ko wala si plateau bu ma bu ma mën a def bu ko suivre bu ci lu jaaduwul daf may woo ne ma lii ak lii ak lii ak lii ko defati démb moo ci mujj kon ku lay defal loolu xulle defe naa ne yéene na la nga réussir kon jéy seen maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax li la ñaanal jàmm di nuyu waa Géejawaay yëpp mais aussitôt di nuyu tamit sa waa dëkk cosaan muy waa kulub maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu sa jarwaat Abdou Sène ah moom tamit di suma jarbaat parce que ni mu ni nga ne ni maanaam ni mu la jàppe la ma jàppe Abdou maa ngi lay péggi di nuyu ay soxnaay jéy yëpp mais jéy daal mention spéciale parce que tamit bëri na lu nga xam ne nii su fa am woo ma téléphone na ma defaral lii lii waroo waxee nii waroo doxale nii te loolu defe naa ne dompat olof na ci sot la bokk kon jéy jërëjëf tey moom moom rek rek laay remercier mu jéy production ba beneen yoon gars yi